Souleymane Souleymane Souleymane baisse le son baisse le son eh eh eh est-ce que pare ngeen est-ce que pare ngeen Sonko ngay soo ko yàbbee di nga xam ne jàmbaar yeeg si na merci beaucoup kon dañuy jox kàddu gi nag comme ni ñu ko waxee léegi notre tête de liste nationale le président Ousmane Sonko le président de PASTEF parce que en réalité na ñëpp déglu ñëpp nañu déglu balaa ñu joxoo kàddu gi dañoo bëgg salle bi ñëpp ne tekk ñëpp déglu. saal bi na ñëpp déglu ñoo leen ko ñaan ñu soog a jox kàddu gi kilifa gi nga xamante ne moom moo jiite suñu tête de liste. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziyaare di leen nuyu di leen jaajëfal di leen wax mbégte gi ñu am tey ci daje bi nga xam ne Pastef yàgg naa dajale mbooloom yàgg naa woote nitu Pastef yi militant ak sympathisant wuyu ko waaye defe naa ndaje tey bi ndaje bu exceptionnel la balaa may sori ci wax ji dinaa leen euh, jottali nuyoo ak euh, ngërëm ak yéene d'un homme exceptionnel boo xam ne musuñoo organiser li mel te nekkul ci biir organisation bi wala sax moom mooy jiite organisation bi muy le président Bassirou joomaay Diakhar fay te mu leer ma tamit ni bu duloon agenda bi ngeen gis nga xam ne ci jamono ji yéen a ngi koy seen fële diggante Kédougou Saraya ba Bakel amaana dina doon def la surprise ndax it li suñuy charte tere mooy ku nekk président de la république nekk président wala secretaire général ci parti bi waaye suñuy charte terewul mu doon militant te le premier militant de ce parti s'appelle Bassirou joomay Diakhar fay moo tax ma bëggoon lu jiitu ñu koy def ci assemblée wala ñu koy def ci texte yi ma bëgg fii par acclamation par acclamation ñun ñëpp ñu dëppoo ni def nañ ko président d'honneur du parti PASTEF mbokk yi laata may sori ci waxtaan bi dañoo nekk ci jamono yoo xam ne ñi ngi jëmmal lu am solo mooy xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex jàngoro jooju ñuy tuddee cancer lii di ko mandargaal mooy lii nga xam ne kenn ku nekk ci yéen wala ñu bëri ci yéen ñu ngi ko pingu seen dënn ñuy massawu mboolem seen ñi nga xam ne ñi ngi dund ak jàngoro jooju man yàlla nattu ma ay at ci gannaaw juróomi at ci gannaaw am na sama benn mag bu jigéen boo xam ne loolu